Thank you. salaamaaleykum waa làmb ji maa ñëpp di ziar ñëpp sama doom mooy bëre fils de Sadio ma ñëw jàppale si ko moo tax ma ñëw ci làmb ji. seen doom buy bëree day ñëw toog ci kaw mais la moo la yëngal ba nga wàcc baax. waaw mais ci laa bokk sama doom mooy bëre faaw ma ñëw prêter comme main forte et c'est du ma ñëw di toog si kaw. artiste la faaw nga yëngu moo tax ma wàcc. waaw lamb la nag mu ngi góorgóorlu yàlla na ko yàlla yàlla may ndam. ñu gis combat bi mu jógee da cee ñàkk bu ñëwee lan nga ko yabee. waaw mu tey xam ne lamb la nawleem lay bëreel adversaire am